lañuy ñaan yàlla ni yàllaa ko yore moo ko om ci nguuram la nekk duñ ko sàkku feneen duñ ko sakku ci neneen fudut fa yàlla waaye nuñ koy sàkkoo fa moom mooy lañu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam te moo ñu ne ud'u llaha wa antum muqinuuna bil ijaaba na ñaan yàlla waaye ngeen am kóolute bu toll ni dina leen nangul la ngeen koy ñaan ba tax na ñu di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam fa xayyinna bi salaam wa duxinna aljannata daarka daaru salaam amin ya rabbal alamin buur yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu may jàmm ya nekk fa yow yàlla mboolim xeetu jàmm yi ci yow yàlla lañuy dellu kon ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu dundal ci jàmm waaye keroog bés ba ñuy dajeek yow yan na doon bés bu fees dell ak jàmm waaye keroog bés penc ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu wërsëgal tàbbil ñu këru xéwal ba nekk fa yow te mooy këru àjjana mooy këru jàmm ji yan nañu yàlla defal li nu mel amin yaa rabbal alamin ñu di ko ñaan buur yàlla yal nañu yàlla may dégg ak topp ñu di ko ñaan bi léegi buur yàlla yàlla nga ñu wottul suñu jeunesse su dëkk bi yàlla nga ñu jàppandalal jëfandikukaay ya ñuy jëfandiku ngir jeunesse su dëkk bi mën a toog ci réew mi war a mën a jëfandikoo la nga xamante ne moo leen di tax a toog ci dikk bi ña yore la tax ñu war a génn dem sàkku xam-xam bu ñu génnee ba ñu delsi yan na leen yàlla tàggatal lañu manqué ci xam-xam ba tax ñu génn dem sàkk ko bu ñëwee ñu jur ko ci réew mi mu nekk yokkute développement ñeel waa réew mi amin ya alamin tukki ba ñu autorisé ne nañ ko def ngir ñu mën a sàkku xam-xam ñu mën a xool téral nu ñu fi jiitu woon melokaanu gaay yi fi nekkoon bu ñu ko demee saytu rootee fa xam-xam ba tax ñu war ko war a mën a installé ci suñu dund yan nañu ko yàlla yombalal waaye xam-xam ba ñu jëlee ci yoonu tukki bi tamit yan nañu ko yàlla wërsëgal ñu war ko war a mën a jëfe te bu ñuy dem ñu génn ci yoon bu legal yoon bu jub yoon bu leer mu bañ a doon yoon bi nga xamante ne alkaange dina ci tegu wala bakken jasi des mu tegu ci yal na bu ko yàlla def noonu waaw tukki du ñàkk waaye yan nañu yàlla leeral yooni mu bañ a doon tukki boo xamante ne bakken bu des ak alkaange moo ci toftal yan nañu yàlla musal ci yoonu tukki bi ni mel amin ya rabbal alamin mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xam ngeen ne ba léegi ñu ngi wéyandek yéen suñu waxtaan bañu yàlla autorisé ci alquran mu di ñu wax ne qul siiru fil ard nel sama jaami nañu doxantu ci kaw suuf si qul siiru fil ard nel sama jaami nañu def tourisme siyaaxa ci kaw suuf si qul siiru fil ard nel sama jaami nañu def investigation les recherches nañu def gistu ci tukki ba ma leen permettre ngir ñu tukkee ko waaye na nekk ci yoon bi nga xamante ne duñ fa nekk di al seen bopp wala alkaan gi di leen fa dab ba ay bakken yay des ci yoon bi ñu di leen fa dab du noonu laa leen wax ne nañu tukkee de déedéet bu dee yàlla def ñu ne xuul siiru fil ard nel sama jaam yi nañu dox ci kaw suuf si nañu tukki ci kaw suuf si waaye nag moo ñu ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaan bikum rahima bu leen fi nekk di xaru bu leen fi nekk di rey seen bopp bu leen rey seen bopp yàlla ki leen yërëm la ba tey tamit inchaa allahu bi iznillahi subhaanahu wa taala ndem soob na suñu borom tabaraka wa jukkil na leen xuus nañu ci biir alquraanul karim ñu jukkil leen aaya ba nekk ci suratul ankabut suratul ankabut ñu ne mooy saaru jargoñ saaru jargoñ aaya ba fa nekk buur yàlla jox ñu autorisation na ñu tukki waaye ba léegi moo ñu ne bu leen rey seen bopp ci aaya ba nekk ci alquraan ci saar bi nga xamante ne mooy suratul nisa bur yàlla ne ñu wala taqutulu anfusakum déet bulen bu leen inna allaha kaana bikum rahima yàlla buur ba leen yërëm la waaw yàlla ku la ku leen ëmbal cofel yàlla buur la ki leen ëmbal cofel kon bu leen alku seen bopp inna allaha naka yàlla kaana bikum moo nekk ci yéen yërmande koor bi nga xamante ne keneen ko dut moom amu ko ci yéen kon wala taqtulu anfusakum bu leen sànq seen bopp bu leen rey seen bopp yàlla nañu ci suratul ankabut qul siiru fil ard fanduru kayfa bada al xalq summa allahu yunshi'u nas'atan uxra summa ثم الله ينشئ نسأة آخرة إن الله على كل شيء قدير mbokk yi buur yàlla tabaraka wa léegi mu ñuy wax ci suratul ankabut ci aaya ba nga xamante ne moo nekk ci boppu aaya bi buur yàlla ne xool nel sama jaam yi siiru nañu doxantu siiru nañu def siyaaxa siiru nañu takk seeni bagage def investigation nañu takk seeni jàjj def recherche fil ard ci suuf si moo ne takk bagage yooyu takk jajj wara def tourisme war doxantu ci kaw suuf si ngir lan fanduru ngir ñu xool ñu xam xam-xam bañ leen di njariñ siyaaxa tourisme ba ñuy manqué xam-xam ba tax na ñu mën a xool kayfa bada al xalq na yàlla tàmbalee bind lamu mu bind ci xeetu mbindaafoon yi yàlla ne summa allahu yunshi'u nas'atan axirata gannaaw ci yàlla daldi soppi mbiri beneen soppiwin bu wuuteeg na mu meloon ca njëlbéen ba ngir ñu mën a ci lan ngir ñu war mën a xàmmee ci kawtefu yàlla boobu ne inna naka yàlla de ala kulli ci bëpp mbir boo gis ci bépp mbir boo xam ci bépp mbir boo xalaat yow doomu aadama qadir ku ci am kattan la waaw yàlla mooy ci am kàttan ci lépp loo gis yàlla ci am kattan bu mat sëkk loo gisul yàlla ci am kattan bu mat sëkk loo xalaat yàllaa ci am kattan bu mat sëg loo xalaatul yàllaa ci am kattan bu mat sëg waaw lépp inna allaha naka yàll ala kulli ci bépp mbir nag haa ci am kattan bu mat sëkk la allahu akbar moo ne yàllaa ñu jox autorisation mbokk yi ngir ñu war a mën tukki ci kaw suuf si ñu war a mën a xool nekkin yambi ndaafoon yi tàmbalee nekk nekkin ba yàlla bind mbindaafoon yi ci seen njilbeen wa waaw nga tukki xool na yàlla tàmbale bind béréb bi mu am diir nga dellu fa gis fa weneen mbindin bu wuuteeg ba fa doon géej na mu nekkee woon waaw gis nga mbokk yi bu fekkente ne buur yàlla moo ñu permettre ngir ñu def tourisme ci kaw suuf si ñu war a tukki xool bu ñu orienté wutoon fa ñu war a tukki ak lañu ñu war a dem xooli ñun dañuy demee ak suñu sago te alkaange mën nañu siy dab loraange mun nañu siy dab waaye ndege moo ñu jox autorisation ni tukki leen ci kaw suuf si ngeen xool waaye lañuy xool léegi nag yàlla moo ñuy orienté la xool aaya bi mu ne ñu ngeen xool mujjanteelu ñu fi nekk di weddi yàlla beneen aaya bi mu ne ñu ngeen xool mujjanteelu kàccoor ya fi nekkoon di dundu dundinu kàccoor bandi yi fii mun nañu ngeen xool ña nekkoon fi yàlla bindi ci njëlbeen ba ginnaaw si yàlla soppi mbindin bi def ko weneen mbindin allahu akbar pour yàlla wan la ne lépp laa mun awma dara ma tële ci sama kattan jalla wa ala zal wal ikram allahu akbar cey suñu borom subhaanaka allahumma wa bihamdik nasaluka an taxfir lana maa qaddamna wa maa axarna allahu akbar mbokk yi la grande puissance yi gars yi di tuddee duñu grande puissance les grandes puissances yu gay di tuddee ñu defee ne ñu ñooy les grandes puissances comme ni ñu koy waxee les grandes puissances la grandes puissances les grandes puissances ci lan les grandes puissances ci lan ku leen jox grand puissance boobu mooy les grand puissance kooku mooy yàlla moo ne inna allaha naka yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir xadir ki ci am kattan kon ñooñu ñuy tuddee la grand puissance ci làmmiñ bi la ci làmmiñ bi la rek ñoom amaana seen grand puissance bi dañ koo yore ñuy noot ñenn ñi ñoom ñu nekk ci donkaaso bi loolu du grand puissance loolu ay xeetu ay xeetu folklore grand puissance la rek waaw les grand puissance kooku yàlla la moo tax mu ne qul nel sama jaami siiru nañu doxantu siiru nañu tukki siiru nañu takk bagaas yi ak jajj yi saak yi fil ard ñu doxantu ci kaw suuf si fanduru waaye ñu nekk di xool di def investigation di def recherche kayfa bada al xalq ne yàlla tàmbalee bind mbindaafoo nii summa allahu yunshi'u nachatan axira yàlla gannaaw bu mu tàmbalee bind lenn ci mbindaafoon yi waaye jamono di dox mu daal di ko soppi def ko leneen lu wuuteeg la nit ñi baaxee woon di ko xam ndax yàlla yenn ci mbindaafoon yi dañuy def tatawur ñu ne tatawur mooy yokkute évolution évolution bi maana a tatawur min xaalin ila xaal wa min makaanin ila makaan wa min zamanin ila zaman loolu muy tatawur mooy évolution bi nga xamante ne am na loo xamante ne day jógeekoo ci tuuti dem ci rëy mu jógeekoo ci rëy dem ci gën a rëy mu jóge ko ci gën a rëy dem ci ngand mu jóge ko ci ngand mu daldi wàcc ba mu mel ni la mu nekkee woon loolu ñu mën kaa jëlee tegtal bi ci weer ñu ne weer bay feeñ day ñëw ci lu tuuti mu dem ba tollu ci laylatul badr la yenentu bi tegtal ne waa ar arjanna dinañu gis seen boroom keroog fa këru xéewal ba di arjanna ne weer bi di tollu ca laylatul badr ñu ne weer bi bu mu tolloo ci laylatul badr mooy roo màndargay cercle yamu doon tegtal da koy mat sëkk day fees cercle boobu day doon lu ron lu mat sëkk ñu ne moy fukki fan ak euh, ñett ñu ne weer bu amee fukki fan ak ñett di treize jours fukki fan ak ñett ñu ne keroog la weer bi di toll ci laylatul badr ñu ne keroog lay tollu ci melokaanaam ndax keroog la matale serkal bam doon feeñal waaye rond bam doon joxoñ ne fii laa war a mën a matale ñu ne keroog lay matale ñu ne keroog ba fa weer bi tolloo nag fukki fan ak ñeent day commencé di wàññeeku fukki fan ak juróom day commencé di wàññeeku fukki fan ak juróom-benn weer bi léegi day commencé di wàññeeku waaw moom la aaya bi di wax suratu yasin wal qamara qaddarnaahu manaadila xatta aada kal urjunin qadim wal qamara qaddarnaahu manaadila xatta aada kal urjunin qadim waaw man yàlla bokk na ci sama ndogal ci weer wi maa ko sàkkal créel ko fa mu war a matee dayoom bu ci tolloo nag ma daldi joxe ndigal muy wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba mu mel ni keroog ba ngeen ko doon siin na mu toll woon day wàññeeku ba dellu ci béréb boobee ba ko yàlla doon jox yonent bi ci misaal xal urjunin qadim ñu ne yàlla dakaa joxoñal yenentu bi ndax araab yi la doon waxal ca moment woowu comme ñoom seen tegtal lu bari bari bari xobu tàndarma nu mu nii lu tuuti li buy géem a feeñ ci garabu tàndarma bi rom ba muy joxe te mu doon lu ndaw mu doon lu tuuti boole ko ko ron noonu muy ron cercle bu ndaw woowu ñu ne fa la yàlla joxoñal yonent bi ngir araab yi comprendre la yàlla bëgg a wax ci weer bi kon ba léegi ñu gis ne aaya bi buur yàlla nee na doxantu leen ci kaw suuf si ngeen xool ne yàlla tàmbali mbind lenn ci mbindaafoon yi ginnaaw si summa allahu nas nas'atan axirata yàlla daal di soppi mbir woowu mbindinam ci weneen soppi bi nga xamante ne yow mi doon dem makk ci ay année soixante boo fa demee année soixante-dix di nga fekk coppite yang fa bàyyi woon bokkul ak lang fa fekk tey yow mi aji woon màkk année quatre-vingt ak keroog bi nga fa delloo année quatre-vingt-dix la nga fa bàyyi woon quatre-vingt boo delloo année quatre-vingt-dix yoo fay gis du bokk ak la nga fa bàyyi woon année quatre-vingt yow mi aji woon année quatre-vingt boo delloo màkk année loo fay gis du bokk ak la nga fa fekk ci année quatre-vingt-dix nga aj waaw yow mi dem Makk 2000 di nga fa fekk loo xamante ne keroog année 90 ba nga fa doon géej bokkul yow mi dem 2000 nga fekk fa ay béréb ak ay melokaan boo fa demee 2020 amaana doo fa fekk laalu nga fa bàyyi année 2000 coppite am na noonu la ñuy déggee aaya bi yàlla mooy buur bay soppi njëlbeendu mbindaafoon yamu bind ci njëlbeen ba waaye comme mbindaafoon yi dañuy am évolution dañuy am tatawur dañuy évoluer jóge ko ci fii dem fee jóge ko ci melokaan bi dem ci yeneen melokaan ba keroog ñuy dellu seen melokaan bu njëkk bañ leen tegtal ci weer bi yàlla ne lii yépp ci sama kattan laa koy doxale ci sama man-man laa koy doxale moo tax mu jeexale aaya bi mu ne ñu inna allaha naka yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir lu ngeen xam lu ngeen xamul lu ngeen gis lu ngeen gisut lu ngeen xalaat ak lu ngeen xalaatut qadir ku ci am kattan bu mat sëkk la jalla wa ala yaa wal ikram kii mooy suñu borom subhaanahu wa taala léegi mu bàkku boppam bàkkul ñu man-manam kattanam ak dayoom subhaanahu wa taala ngir ñu xam ne moom rek a fi nekk di yàlla jalla wa ala subhaanallahi amma yushrikuun set ak calaa na ko ci lépp lu ko doomu aadama bi di melale walla mu di ko bokkaale yàlla dañ na ci loolee set na ci loolee jalla wa ala amma yushrikuun yàlla dañ na sellaay nga ñeel na ko ci lépp lu ko doomu aadama yi di melale subhaanahu wa mbokk yi ba tax na Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bañ leen di amal ci waxtu wi mu di leen andil ci ay bunt yu fasante ko ci alquran ndax bur yàlla moo ñu ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun yidabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albaab da di téere bi nga xamante ni man yàlla maa ko wàccal yow yonent bi mu doon téere bu lambok barke mu doon téere bu fees dell ak barke yal nañu yàlla may barke alquran amin ya rabbal alamin waaye yàlla nu mu di ñu wax ci téere bi ne li yadabbaru ayatihi ngir ngeen saytu kawtif ya fa nekk tegtal ya fa nekk ay màndargay kawtifu yàlla ya fa nekk yoo xamante ne 97.5 mu ngi leen koy andil ci waxtaanu fajar ba ngeen di ànd ak ñun ci waxtu wi ñuy sensibiliser suñu jeune su réew mi ñu di leen wax ne naam dëgg yàlla ñu ne qul siiru fil ard doxantu leen ci kaw suuf si tukki leen waaye moo ñu ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen di rey seen bopp yàlla ki leen yërëm la kon ñu nit ndegem fii la ñu nattoo ci lii la ñu yàlla nattoo ñu war a mën a sensibiliser ndaw ñi ñu war a mën a orienter ndaw ñi ci la nga xamante ne muy suñu alquran bi nga xamante ne ba ñuy julli moom la ñuy jàng kenn ku nekk am nga mébét pour jàng ko mokkal ko wala kenn ku nekk am nga mébét alquran mu doon sa référence am nga mébét alquran doon sa niitukaay balay niital say dund suñu maam rahimahumullahu taala rahmatan waasiah yal na leen yàlla jëkku yërim ak suñu sëriñ ñu baax ñi ñu sàmmal ñu ndono bi ñu di ko tiyi di ko sàmm di ko tiyi di ko sàmm bi suñu seriñu daara yi jot si ñoomit ñu sàmmal ñu ndono bi di ko tette di ko sàmm di ko tette bi suñu wuyjur yi jot si suñu wuyjur tamit di sàmm ndono wi di ko tete di ko sàmm di ko tete bi suñu sëriñu daara yi jot si bi ñu nit ñu di si góor góorlu donte ñoo si gën lottu ñoo si gën a niwli nuñ koy sàmmee waaye yenentu bi daf ñu ne ci maana xadis balligu anni walaw aaya na ngeen ma jottalil donte aaya benn aaya doon na ngeen ma ko jottalil ci nopp koo xamante ne bu ko déggee war naa war a mën a soppi doxalin ba tax na réew mi fm 97.5 ak yeneen plateforme yi nga xamante ne ñu ngi fay waxtaanee waxtaanu diine ñu nit ñu jël béréb bi di fi jàllale message bi nga xamante ne képp ku ñu may nopp ci waxtu wi amaana du ñàkk ñu bokk ak yéen njëriñu la nga xamante ne mooy saadatu daarey ni mucc ci ñaari kër ñi fii ci àddina lu ñuy musal lu ñuy jàmmal fii ngeen koy taataane ëllëg bés penc ñu ñaan yàlla suñu borom yàlla boole ñu suñu muy tabbal garaatu texe ba tax na ñu nit ndegam ci lii lañu yàlla nattoo ci kër gi ci daara ji ñu nit ñu di ko nap-nap ak ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana mbokk yi mbokku jeunesse yi yàlla moo ñu sant ne na ngeen tukki waaye ba léegi moo ñu ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seeni bopp bu leen alak seen bopp inna allaha kaana bikum rahima yàlla ku leen jeunesse ñu ne ñooy ëllëgu magu réew mi buñ ne genesi ñu ne ñooy ñuy suqali réew mi te ñu bàyyi xel ne amaana foofu ñu defee ne fala teraanga àddina nekk te ah yàlla xam waaye nag bu dee dañoo góor-góorlu fu ñu yàlla wërsëgal mu doon suñu territoire amaana du ñàkk ñu teddee fi amaana ñu am fi taraanga joo xamante ne moom lañu suñu borom wërsëgal ba tax na ña yàlla dogal tamit ah ñu génn dem faggu xamxam walla alal ci bitim réew bu leen fa yàlla joxe taraanga bi ni mel bu ñu ñëwee ñu daldi ko fi yàbbi autorité yi umaraaw yi aima yi yi suyuux yi intellectuels yi nañ leen bokk doon benn say yore benn yéene ngir aar suñu jëmukaay moo xam ci jaww ji la moo xam ci géej gi la moo xam ci jéeri ji la moo xam fu munti nekk ñu géem a saytu lay dugg ak lay génn nu muy duggee nu muy génnee amaana bu ñu taxawee taxawaay bini mel buur yàlla tabaraka wa taala dinañu may saada dinañu may najaax dinañu may résultat ba ñuy géem a séntu ci suñu territoire par rapport ak ñiy génn ak ñiy dugg su ko defee mu méngoog aaya ba nga xamante ne moom la buur yàlla wax ne inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim déet yàlla muy soppi li ci xeet wi lu dul xeet ba taxaw tem won yàlla ne lii lañu bëgg ñu nekkee ko wala lii lañ bëgg mu dagg su ko defee buur yàlla daal di ñu fekk ci loolee ñu bëgg ñu nekkee ko wala loolu ñu bëgg mu dagg su ko defee lii la leen Rewmi FM 97 andil ci waxtaanu fajar ba ngeen di wétalanteeg ñun ci daara ji ci waxtu wi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a jëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan